bi régler le problème bi nga xamante ne moom problème marketing communication pour club yi mais aussi pour euh, euh, site internet yi ak chaîne de télévision Ce bi je veux wax ci loolu moom mooy lan veux dire, li li muy a mooy match amatul match bi nga xamante ne kenn am na droit de filmer diffuser ko en direct mais ku la neex bu la neexee nga filmer mm-hmm. bu jàllee 48 heures nga exploiter. Bujale 48 heures bien exploité mais yow itam bu la neexee en temps réel ngay filmer Euh, match bi jeex nga exploité ay contenu yo xamanteni ay contenu ci ces émissions la ak yooyu lolu ligue bi ay ko lolu lañu wax ñom ci sen conférence de presse bi nga xamanteni amalon amaloon nañ amaloon nañ ko donc ku doon def émission ci walum football amul lenn li nga xamanteni ne moy change mën nañu filmé ay matcham ci biir émission mu tek ci ay extrême mais bu dee wàllum club yi bëgg woné wanewaat match bi yëpp naka ligue bi néna 48 heures la mo mën a wanewaat intégralité dëgg la